asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 8 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey mu mel ni sunu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu lamb moom Pikine la xëy tey wan ñu leen mbëri Pikine ya jàppal Eumeu seen Boy Niang Ama Balde ak kii nga xam ne moo di Baboy mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day daa jàpp ne fii nga xam ne moo di Pikine day ñàkk a wóoloon tente wala daal nit koo xam ne da am ci moom xel ñaar moom daa mel ni dugg na ci seen biir fi mu nekk nii ba mel ni loo xam ne daal lu leen nar a jaxase la li ko waral nag mooy combat Lac de Guiers bii ñu jëm ak Boy Niang mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom Pikine moom ah mbir ya moom jaxasoo na bu baax a baax a baax ay peleen tak lu nekk am na ca yëglikaay bi di suñu làmb moo nu ko wax di xam le ne baaboy de porté na plainte ki nga xam ne moo di Pape Sarr mel ni ki daal fi mu nekk nii Pikine moom li ñu toog moom wuurul wala jaxasoo ba metti na ku ne yaa ngay moytu sa morom di xalaat mu yàqal la waaye yëglikaay bi ba tey mu ngi ci combat boobu nee na jàpp leen tey ci ci altine ji day Boy Niang lay def li nga xam ne mu di ëppan presam fële ca Pikine mu mel ni ki nag ama wala soq day est ce que dinañ leen xaar fu wala boog ñu leen fay xaar suñu làmb xëy tey di ñu ko wax waaye jamono joojo day jàppal bu fekkente ne ñoom mbër ya wala wóolu diggante am na moom daa ni biir Pikine moom fa di marché moom lañ la ñu xam ne daal mooy li leer ba leer moom Boy Niang ak lu mën a xew dana daan kii nga xam ne moo di Lac de Guiers te jël bu leer lañ la koy daan ñoom amateur yooyu wala supporteur booy ñang yooyu daal ni ca Pikine ca marché 5 moom gis-gis booba la ñu am waaye ñi nga xam ne nag ñoo yor mbër yi moom balaa ñaari mbër yi di bëre muy woon Sall ma yor Lac ak Cheikh Ndiaye ma booy ñang moom ñoom daa mel ni day defante wala boog naroon nañoo wanante seen bopp ci wàllum combat wala ñu jor ko sax bëggoon a commencé ñoom ñaar ndax daa mel ni bërki dem moom ba ñu daje fa nga xam ne moo di ci arène nationale moom naroon nañ faa tàngal jër wala sax ñu jot faa laale yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel noonu jëm ci ba mu nga xam ne ba tey ka ko tëgg moo di Baye Ndiaye waaye bu ñu demee ba tey nag fii nga xam ne mu a record bàyyi Ndiaye ma tëgg làmb ji moom mu ngay xam ne ne dey làmb ji moom ah maanaam laal avenir am ci la dépendre maanaam li des ci li nga xam ne moo di carrière am en tan que promoteur waaye mbirum xaalis moom li mu ci dépassé laaj nañ ko ko bàyyi na fi mu nekk ni moom wax ne dépassé naa ci lii wala lee te lamb ji jeexagul day jafe loolu moom la record tey xëy du ñu ko wax leneen loo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na ci muy ku bëre woon ba pare muy rëg-rëg digganteem ak guy gi mu mel ni gi nag booba combat moom ah ku mel ni nas moom est-ce que wala boobu moom daa mel ni d'accord ne day ci promoteur bu dëggu mu ñëw négocier ko moom daal xalaat na ne bu amee moom nangu bëre day am loolu mooy waxi nas sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye jàppal weekend bi itam day joxoon na lool la ko commencé samedi ba dimanche ca arène nationale ak Iba Mar Diop bu dee sam la moom ca samedi ja daal fa nga xam ne moo di arène national moom su njata moo fa gën a dugal Aliou Mané ci saako bi sunu làmb xëy di ñu ko wax bëre nañ juróomi minute vingt quatre secondes yëglekaay bi xëy ñëw. wax ñu ko jamono ji ñuy bëre nag ca samedi ja fa nga xam ne moo di arène nationale moom Coly Faye moom mu ngay woon Ndandi Fall lii nga xam ne moo di boppam daan ko jël bu leer a leer ci deux minutes 48 secondes sunu làmb xëy tey wax ñu ko ba set dimanche ja tamit arène nationale yëngu Iba Mar Diop yëngu Iba Mar Diop moom njaaytin rakki tafaatin daal moo foon Birahim Junior ne ko duma sa morom maa la dàq bëre maa la ëpp doole maa la gën a foor may ko fu mu yekkeeg nàkkam dal ci koom daan ko dem ñibbi la njaaytin def waaye leneen loo xam ne tamit jamono jooju mu ngoon fa nga xam ne moo di arène nationale ba tey yëglikaay bi ni ñu ko wax muy double moteur diggante mu fëgg la mu mel ni ki nag yëglikaay bi ne day double moteur référence am kii nga xam ne moo di fëgala ndax nag làmb ja donte xaw naa xëccub diir waaye fa ñu mujj daal mooy fëgala moom double moteur da koo daan jël bu leeral leeral leer ñii moom bu doon dañoo bëgg a daanante seenum combat yëg likaay bi ne dàq nañ ko muy diggante bàyyi ma njoon ak xoyantaan le 31 juillet waroon a am ca Gàmbi léegi nag nañ combat ba moom reporté nañ ko ba weeru novembre fa la nga xam ne mooy ca Gàmbi am mbërë ngi moom dafa xëy moo di jabel bu yoof jabel xëy na daal di wax ka muy waxal nag mooy kii nga xam ne nii moo di ñàkk jariñ nee na na ma jël mënumaa bañ jabel la xëy tey di ko wax waaw moom daal nee na ñàkk moom amul foo xam ne nii mën na faa jaar naan daf may bañ wala lii wala lee ba tey bu ñu continuer nam ci fii nga xam ne nii moo di yëglikaay bi lamb simple moom amoon na foo nga xam ne moo doon ci Adrien Samor waaye nag mise ba ñu fa tegoon moom ngel jonn moo ko jël yëglikaay bi xëy na ñëw di ñu ko wax drapeau moom. bu jeexee itam ba tey des na waa dakaar nag wax nañ la ko ci OMS OMS moom nee na Thiès moo gënoon supérieur Dakar maanaam daal moo ko gënoon fort ci yëpp moo tax mu gagné ko 5-0 waaye li leer ba leer day tey bu ñu continuer rek fa xam ne moo di Leewtoo TV nas fay wax wala boog rëg wax nee na nas moom xaalis la bëggal kii nga xam ne moo di rëg-rëg ndax nag 40 millions wala 50 moom kër gu mu dugg moom jàmm dong la fay def waaye la dëgër ba tey ci Leewtoo point ñuy xam ne day moom est-ce que am xel daaneel ñaar ci waa Pikine ndax nag combat yam fa jot a ko bëre moom ndam amu ko ci amu ca daal ndam digganteem ak lag bu digganteem ak Eumeu Sène bu njëkk ba dañoo niil ñaareelu combat ba Eumeu daan ko mook Baboy itam sans verdict la mujjee loolu lay toppooy nag moo xëy tey di ko salaamaaleykum mbokki suuf Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni nga koy defee ak chaque fois di ànd ak yéen seen revue de l'arène comme euh, weekend bi jàll na fi ñu namoon leen trop ñëw tey lundi fas seeni ñëw si li nga xam ne mooy jàngat bi ginnaaw Babacar defee revue ba pare Babacar nuyu naa la. fay naa la Aïssa maa ngi lay nuyu di la di nuyu internet yu suivre Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek. waaw di leen baal waxate di leen baal di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm daal. waaw Babacar tey ñu dugg ci waxtaan bi ñëw ak combat Lac de Guiers ak euh, Boy Niang bi war a am euh, incha allah le 13 juillet mais coow li bëri trop fi mu toll nii du si mel ni biir Pikine ñu ne fi mu toll nii xel ñaar yaa ngi fay bëri parce que coow li bëri na ñu ne Lac de Guiers euh, day entraîné ki nga xam ne mooy Baboy mu nekk coow loo xam ne tam naqari na kooku di mbarodi bi ba tax na mu ne dafay porter plainte ki nga xam ne ni mooy Pape Sarr. waaw loolu day li ma si mën a xamal daal mooy ay sa euh, dëkkandoo wolof ne na jàmm ci gën ndax bis du ñàkk loolu mooy lan ñoom ñoo bokk Pikine Baboy mbër la champion la def na lu ne Pikine bëre ba bàyyi fa bëre jox na leen bonheur bu ne yaa ngi dégg tey ay rakkama ayale muy Eumeu Sène sa le roi des arènes moom tamit reñe daj lu ne si làmb ba tey mu xëy dégg roi des arènes muy lu nga xam ne liggéey moo ko ko may Ama Baldé falaay suma papa yàlla na ko yàlla yërëm doy na wax ak ñoom Jules Baldé ña ca des kooku itam yaakaar naa nu mel tey ci Pikine ci làmb rek defe naa ne bu donn na ko waaye nag loo donn doon itam dangay liggéey boo liggéeyul moom doo ko kenn ki ci des mooy booy ñan tamit looloo ko dal ndax déggoo son papa itam waaw waaye dafa dafa ñëw wane lu tax mu wane ne lii moom man tamit fii laa ci war a toll kon tey defe naa bu loolu amee Boy Niang jëm ci bés Eumeu seen jëm ci bés yaakaar naa am na loo xam ne warula am ci seen biir parce que ñun man euh, am na loo xam ne ay sa ci ay diggante man dama préféré su may wax ci yéen diggante su ma ay dëkkandoo wala ay mbokk wala ñu seq benn biir ma fexe wax lu cay defar man moo may gën a arrangé man baaba parce que li tax mooy rafetal gi moo gën ñaawal gi quant à diw day entraîné diw wala diw day ànd ak diw loolu est-ce que réellement noonu lay demee wala est-ce que noonu ñu ko waxee noonu la demee loolu lépp dafa jara gëstu wala bu fekkee ne nit ki bu fekkee ne nag yow yaa moom sa bopp am nga droit tey jóg dem jàppale jaay sa loolu ku am na si droit yaa ngi dégg ci bu la neexee waaye defe naa nag jërul ay portente plainte jërul ay demante police xëy na nag baa booy xëy na moom am na droit porter plainte ndax li tax mooy waaw bu jàppee dañ koo tooñ te mënta jéggale xëy na mën na dem fi mbaax na doone benn ñu àtte leen comme mi moom kenn du fajal sa bopp ndax li tax mooy yoon moo fi am mais nag encore une fois daal li ñu leen di xamal mooy balaa ñu ciy demante ay tribunal man de bu ma sañoon ñu toog ñoom waa Pikine waxtaan ku ci ne cër bi nga am ñu jox la ko mbër yi def rôle lu mbër yi ñu doon ay champion ñi nga xam ne dañu bëre ba bàyyi bëre di ay ancien goal war a encadré xam seen rôle tamit encadré te defe naa loolu xam nañ ko ñiy supporter tamit xam na ñoom ay supporter la ñu jéem a boole seen ay mbër ñu ànd nekk benn ndax nag ah olof a koy wax de gis ngay mbelentaan boo leen fekkee xorondom yi fa ñu nekk ca àll ba saa yu ñu lu ñu bëgg a yóbbu yóbbu ko mais ku ci ko doo yóbbu dara kon nag mbooloo mooy doole te yàlla suñu borom bi moo ko wax ci alxuraan gis nga mbooloo ci la yërmande suñu borom bi nekk kon encore une fois nañu yéeneente jàmm loolu lii dama koy wax pour sénégalais yëpp ah, loolu dafa bëri lii nii bëri na ci réew mi bëri na ci liggéeyukaay yi bëri na foo dem jaxasaate baa ngi mel ni tuleeg màlle Aysatoo wax lii Taalaa wax lii mm, yàgg def lii mu mel ni coow fu ne la ama ah, fu ne day dem ba benn moment sax yow lépp la yàq. waaw loolu moo moo réew maanaam àddina bi pour man sax rawatina réew mi ñun loolu moo ko tardeel il faut que nit ñi bàyyi net li bi bàyyi waxante bi bàyyi sosalante bi ndax waxi jàmbur saa yu ma yóbbu waxi Aïssa ne Aïssa taalam moo la wax lii dinaa yokk ca wax ja wala ma wàññi ci Cheikh Abdoulaat nag yàlla na yàlla yokki leeram doon na wax ne ah, sa bët bii moo gën a wóor sa nopp bii ba nit ka di ko net li diw ne na diw nee na mu ne ko folli leen seen nopp yi tafal seen bët yi maa gis a gën a wóor waaye nag réew mi moom fi mu nekk nii jaxasoon mais loo ci mën a dégg daal lu ci waaye di wax ci sa moroomum nit na nga ko xam te itam defe naa uñilante sutura am amut njariñ yu ñaaw yi nañ ko bàyyi tey wax ci yu rafet yi loolu moo ëpp solo encore une fois lamb la ñuy def sport la ñuy def booy Niang mën na gagné la de la Lac de mën na ko gagné parce que ñoom ñaar ñëpp ay sénégalais la ñu kenn ci génnul réew mi di wax ne que daal man ay sa loolu moom moom laa si wax na nañ rafetal mbir yi daal nañ ko rafetal. waaw Babacar coow li ba tey jeexagul parce que bu combat bi desee tamit ñii di entraîneur yi ñoom jot nañu wane seen bopp fee ci arène nationale samedi ginnaaw bañ fa dajee diggante ki nga xam ne mooy na Sall ak euh, kii di Cheikh Ndiaye parce que Cheikh Ndiaye. Euh, giseewul ni ko aaru na ñëwee di ko jege ci combat bi ak fi combat bi toll rafetluwul euh, boobu démarche. waaw làmb moom ànd na ak méfiance maanaam moytu waaw su ma koo xam ne adversaire bi nga yor moo koy entraîné xëy na nag man naa mu doon da ko defoon ngir ngir kaf mais Cheikh Ndiaye xëy na jàppul ne day kaf wala moom day moytu parce li ma lay wax rek waaw daw ba raw olof ne ci nguur la ci nguur la bokk comme moom géejawaay la dëkk yor mbër ma muy lak di ko entraîné yow nga yor booy ñang defe naa bu ñëwee bëgg la nuyu tamit xëy na mënoon na ko day la muy man mooy tee boppam ndax dina waaw ñu coow fa dégg naa ba jot fàllaale waaw loolu nag moom mënoon naa ñàkk parce que ñoom ay responsable lañu ay royukaay lañu parce que Cheikh Ndiaye encore une fois nit ku baax la Arouna Sall tam nit ku baax la parce que na tension làmb bi moo foofu ba nga xam ne nii Cheikh Ndiaye moom ñu koy nuy nga parce que suñu goro la bu ma nee suñu goro la dafa may sama benn xarit ñaareel doom muy xaadim xaadim Balla Gaye xaadim ja nekk fële ca Ponti dëkk Touba ma ciy profité di ko nuyu moom xaadim bu baax a baax di leen wax ne daal nañu tempéré dënn yi quoi wàcce taas yooyu parce que lamb ji pour man ki koy gañee du kii mer ku ci gën a dal gën cee lucide gën cee tranquille pour man yaay gañe combat mais bu ci ku mer mi moom jëru ko daal pour man jërul mer que dañuy jàpp ni combat bi moo toll foofu parce que kii nga xam ne mooy coach Arouna ki nga xam ne ni mooy coach Cheikh Ndiaye ñaari ñoo xam ne bëri nañ jàmm foo leen gis dañ lay nuyu seeq yi ñëpp jàmm tension combat rek moo war a doxalee fu lu mel nii non ay xam na ko ay nit yu am respect lañ si doomu aadama ma fekk dóor na ma ku naa naa bëre mm. Arouna Sall bu ma séenee ñaari loxo Serigne Babacar la may wooye ndax xam nga taalibi seex bi doon ak yooyu yooyu yëpp nag bu ko defee ñu jéem a tempéré tatal dig diggante Pikine ak Guédiawaye dara xaju fa lii sport la ko jàppe noonu que le meilleur gagne bu samedi loolu rek moo ci desaan ah, te tere Sénégal day continuer yaa ngi dégg ndax mbër bëreek moom ba pare taxul nga meb ko yóbbu ko fen wala nga génne ko réew mi bëri nag fa la ko daanu rus mais nag nañ fexe lépp yem ci cadre sport quoi moo gën a rafet ba tey ñu jeexal ak seen open press ñaari mbër nga xam ne mooy la de Guiers ak Boy Niang ñu def tey seen open press kii di Boy Niang fële ca Pikine suba incha allah këli de Lac de def fële ca marché jeudi bi. waaw loolu moom ci lu jëm kon moo lay won ne ñu ngi ci dernière phase combat bi parce que tey Boy Niang Pikine ah comme niñ ko xamee open press loolu itam dina war a mën a neex mais encore une fois rek liñ ciy wax mooy que ni ah euh, nañu veillé ci bu baax a baax ci côté sécurité bi parce tamit mbooloo fu muy daje. ñi mel ni Babacar dañ cay rax comme li olof yi wax waaw gàmmokat yi moom chaque jour du ñu bokk ak raskatu déem yi raskatu déem yi moom ñu ngay xool portable bu lang euh, xaalis bu ñu mën a rocci ñooñu tamit des di jóg ci ñoom waaw mais daal vraiment yàlla na commencé ci jàmm open press booy ñang jeex si jàmm bu la dëggeer tamit suba yàlla na commencé ci jàmm jeex si jàmm kenn bañ ci am benn jafe-jafe génn Babacar ñu dem ci gala week yi nga xam ne amoon na fi mu nekkoon tamit euh, week bu riche en gala kii di double moteur daan fëgala li Faye daan ki nga xam ne mooy Nandi Fall Ndiaye Tine daan Birame Junior ah Sunjata daal enfoncé ki nga xam ne nii mooy Aliou Mané mu nekkoon tamit weekend bu neex. waaw neexoon na trop parce que boo xoolee keroog Iba Mar Diop vraiment Kuli Faye de ñëwaat na comme li ma waxoon rek seen combat dafa metti woon ndax ñaari defet ku ci ndam ko teglante ah yàlla dimbali na ko nag daan na daan di fàll waaw loolu itam vraiment defe naa ne ah xel war na ko mën a nangu ci kaw xale li Faye moo gën a féete xale daan di faal yaakaar naa am na foo xam ne bu ñu fa yeggee ci yenn épreuve de force yi xëy na loolu mën na génne lu tax moom a daan yàlla may na ko ndam a ah. jafe-jafe des fois mais nag da ngay wóolu rek tey liggéey bu yàggee yàlla mën indiwaat résultat bu baax pour yow kon Coly ñu koy félicité mais di encouragé Ndandi Fall di ko wax ne moom itam xale la pertegul dara si làmb na dem ànd ak waa Grand liggéey mais bàyyi làmb moom comme ni ñu koy waxee fan yëpp loolu laa xalaat loolu bu mu ko sax xalaat métier la ci lañ ko xamee mu ngi tedd bay am na lu bëri lu mu ko may loolu na ko na ko téye parce que ndey Aysatu li tax ñu xam la wala li tax ñu jox la cër loolu danga koy fonk ak lu mën a xew rek fonk ko kon Ndandi bu mu def ci boppam mukk loolu na xam ne làmba la sport la na dem liggéeyuwaat. waaw bu ñu ñëwee tamit ba tey ci samedi jooju arène nationale Aliou Mané gis nga moom itam vraiment moom moom boo xoole moom carrière làmbam dama naan metti na quoi vraiment moom moom metti na parce que Aliou Mané yaakaar naa ne ay ati ati ati ngi yoo xam ne gisuñu ko fu mu amee ndam 11 ans fukki at ak benn waaw loolu moom du lu ndaw waaw kon di ko encouragé di ko wax ne tamit ah mu ngi noonu waaw mbir tamit soo dematee boo olof nee na boo demee ba xamoo fi nga jëm da dellu ginnaaw dellu fa nga jóge woon kon loolu lañ koy wax moom Aliou mais Soundiata moom lancé bi mu ne mu ngi ci ñu koy xamal en tant que xale bu ginnaaw bu ñu ko félicité daal bu mu naagu sport moom boo ci nekkee bu ndam yi neex ba nga naagu parce que lépp na ci biir waaw. dañuy dem euh, jeexal ak li nga xam ne tamit euh, mi ngi léewtu fekk fa benn jàngat ci diggante la de Guiers ak euh, Boy Niang parce que kii di Lac de Guiers champion yi nga xam ne daje nag ñoom Pikine muy Baboy mi Eumeu seen amul ci ñoom ndam tey tamit mu delluwaat Pikine est-ce que amul lu mu war a ragal Pikine waaw balaa may dugg foofu sax dama fàtte woon a wax ci tamit njaayiti nag waaj al Birahim Junior ak double moteur ak kële njaayiti ni itam démb ni mu bëre ak Birahim Junior loolu moo lay wan ne moom itam ambition la am xale la ñëw na wan na ko réussir ko ñu koy féliciter di encourager ki nga xam ne nii moom moo di euh, Birahim Senior parce que Ndiaye comme li ñuy wax rek comme ni ñu ko xamee dafa judd fekk ngeen ci kër gi kon bu bëree wàcc na su bëreewul tamit euh, waaw bëree daal moo ko war kon mu nga ca di ko féliciter waaye double moteur tamit di ko féliciter di encourager fëgg la ah, di wax ne ñoom ñaar ñëpp ku ci ne bi ngay dugg Ibama euh, arène nationale mënoo xam ne kii mooy daan parce ku ci bëri nañu vraiment bëri parce que Feugeula dem na ba yóbbu ko ardo kon ça veut dire que Feugeula indi na jom ci bëri bi def na ci fulla ak fayda mais nag double moteur da di xale boo xam ne ni tamit am na lu mu bëgg am na ambition boo xoolee fa mujj daan na ko jële bu leer di ko féliciter moom double di encourager Feugeula loolu mooy sport li nga wax tamit si le cas la booy Lac de ak waa Pikine waa noonu moom defe naa noonu la demee waaw parce que xam naa ne mook baa buy seen combat bu njëkk nañ ko ndam kase verdict ba muy combat boo xam ne sans verdict la mu bëreeg ëmma aller retour aller ba ñu mat seen retour ba ëmma gagné ko kon bu fekkente ne loolu la côté boobu mu ne gisaguñ fa ndamam ah loolu nag xaw ma day moytu xaw ma da koy war a yokk jom itam parce que comme loolu am am dund na ko fa xëy na bi yoon dina fa jéem a nag am ndam mais loolu est ce ñang dina ko nangu samedi ci kàttanu yàlla nañ ci xam dara ay sa yàlla nañ ko fekkete tal ko Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di jaajëfal ki nga xam ne mooy Mame Talla chérélé bu ci caméra bi di jaajëfal Ousmane ci montage bi di jaajëfal équipe Leewtoo TV bi yëpp Ndey Kumba Rose yàgg Biram Momo Mané Chéri Naba ah papa bébé Lamine ak bébé Jackie di nuyu Iba célibataire bu mag bi ah suñu suñu célibataire bu mag boobu nga xam ne soxna lañ koy waral guddi ñu toll ku bëggee rek na ñëw ma jox ko amul amul benn dara du si fekk kenn Babacar di nuyu Leewtoo TV bi yëpp ak képp koo xam ne rek yéen a ngi ñuy bëggee di ñu safoo à chaque fois. waaw noonu la demee ay su di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp wax di ñaanal ñëpp jàmm ah, di la nuyuwaat encore fois di nuyu taala mais di nuyu tam ki ne mooy Abdou bu xarañ gis nga mayo bi dem moo ko defar ñëw nit jox ma ko ma sol ko Abdou maa ngi koy baax a baax